برا عن الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعتراد برا عن الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعتراد sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke jëmm ngi nii joo xam ni jamonoy murit yi yépp jaaxle ngir gisatuñu doomi Serigne Touba ci kaw suuf mo ndik a la laxasaayam wane yoon wi kep ku yaakar khadim rasuul waré andak ki jëk doon khalifa ci sët yi di cheikh Mouhamadou Lamine baram bakke fadil boba la xeli mourid yep dellu si seen xel gëna dal seen yaakar gëna deugër ci Serigne Touba. kone diw doomi Cheikh Cheikh bashir la. Cheikh Mouhamadul Bachir bokk njabootu Cheikhul Khadim kan naa alam la dundul ku ñuy laajte bokk ci néeg boo xam ne itam xam-xam ak diine lañ xam ci ñoom muy askanu Mbakol góor gu ñuy wax ma xujja faafaal jaxate moo jur waajuram soxna Binta Jaxate moog Cheikh Mamadou Moussa Bachir suñu saaq góor gi ma xuja faafal moom yi nag moog sëñ Moudou Assa Jaxate mi jur sëñ Amsatu Jaxate ak waajuru sëñ Saliou ñoom ñoo bokk benn baay askanu mewndu la bokk ñu xam leen ci jàng ak jàngale ak bay di dunde Daaru Salaam Kayal la gane àddina 1900 1933 am ñuy wax 1934 waaye 1933 mooy li nga xam ne moo nekk ci ay kayitam Darou Salaam Kayel. département de Mbacké fala dale Itam. itam al Quran. fala ko tàmbalee. Sëriñ Tuubaa ci mbindam

هنا أكرمني الله بجاه المنتقى من يوافقني يلقى متقى أبني تمير تمير بيت فخلي ويتو لكن تلو منتقى بابو من سرين جواب من بالباحي الضفا أظن توجه إلي فاندفا حكمني الحكيم وهو الحكم ومن تاتين المنى والحكم سرين منتقى بسير مباكي تنفل ندير كوني واجل كوني فاقل أبتر te jëfi waajuram firnde la ci. Cheikh Mamadou Bachir muy waajuram daf ko tànnal néeg boo xam ne ñëpp dañ ko daa taamu ñu néegu mu mewndu ñu néeg bu wax na xam-xam ak diine ak bay di dunde ak ngor loolu lañ xam soxna si nga xam ne mooy waajuram it doonoon ko amub cir jigéen la waaye cirub góor la yor amoon na taw tawfeex ci sëriñ bi ba fekk sëriñ bi mu toog mu yëkkati dërëm jox ko dërëm ngurdu sëñ bi ne ko lii loo ci jublu mu ne ko damay joxe addiya te booba ndawe na lool sëñ bi nangul ko boppam te xam nañ ne sëñ bi dawul laal kon soxna si boobu la muy ndawe am na lu mu doon faggu loo xam ne jàpp naa ne faggu teef gi Seex Mahmadu Muntaxa mi ci la bokk mu liggéeyal ko itam nag ci kër waajuram liggéey bu wóor boo xam ne dañoo xam ne nopp moom ak borom waaye ku ne xam na ne liggéey na fa lu ko may doomam toog jataayu Seexul Xadiim ndax pas-pasam ak liggéeyam bu sell ba ñëpp seere nañ ko ñu nekkoon ak moom ci kër googu moom soxna Binta Jaxate jaar na njaareem ci sëñ bay Mbay Cissé ngir yi njàngum alxuraanam bi mu jàngee alxuraan ba noppiit jàng na xam-xam jaar na ci loxo yi sëñ Mat Dem ci sëñ ma dem di ku ñu xam ci yoonu murit ci kilifa yu bari yoo xam ne ci yoon wi jaar nañu ci ci loxoom ginnaaw bi mu jógee ci sëñ ma dem itam ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Bachir mi kilifaam mi waajuram ci la ñëwee ci sëriñ Habib bari na téere yoo xam ne sëriñ Habib la ko nafaraate lu mel ne Xalil Muxtasar Cheikh Xalil رسالة الثمر الداني ak xeet yu mel noonu foofu jaar na ci simili bu nafaraat téere yooyu yurdi billadi ka xidmati bada nafaytu zannuhu bi anni pas-pas bobu dogu gogu ak talibe gi mu wane won doonul lu bessi mom lu mu xam la yàgg ko dund ndax findeli modi fi mu jaar bi mu gane aduna nekk ku sonn lool ci sàkku xam-xam Mauritanie nag jàng na fa sonn na fa lool ci ci jàng coono coono boobu mu sonn ci sàkku xam-xam ba daj ci li mu ci daj moo tax ñaare bu masaane gis kuy sàkku ji xam-xam faaw mu yab na maanaam mu dénk la moo tax am na doomam sëriñ musa sëñ Moussa am sëñ Mountakha bi muy jàngi Maroc nee si suñ de ko ne ah de moom faaw mu and ak choono ngir nga meuna jot njariñ bi meññatum xam-xam faaw nga son dal ko ne man bima ma nekkee Mauritanie maag Serigne Moustapha Lo xif khif ñu japp ba buñ doxé ba gis dàkkaande dañu japp ne ci pom lañ yam nga xamne gëmi duñ ko gëmi ngir ngir xif bu metti won ba nopi daanako ko xamal nit ne ko bu bu bu bu bu ay yéreem tilimee day wut barab bu mu toog fóot ko toog xaar ko ba mu ba mu boobu mu salaat ko kon mel ne ku sonn la ci sàkku xam-xam lool dex bu tedd googu ci murtan bi bokk na ci ñi nga xam ne roota na fa lu bare bare bare bare bare bari muy giir gi nga xam ne mooy ay idawal xaaj mooy xeet bu mag bu fa nekkoon wala ko bàyyam yóbbuwoon suñu Basiru jàngee na fa lu bare bari géeju na fa tax na ba bu ngeen ko seetloo dundalaat bëgg naa dundalaat lu bëree baree bari ci sëñ yoo ci murta muritani murid yi ak murtanien yi bëgg na ci dundal lu bëri ngeen di xool ci image yi di ngeen seetlu néew na weer wu jàll ci invité wul borom xam-xam bu nekk murtani indi ko fii teral ko wala yu mel noonu te loolu fi mu ko teg rek mooy gis ne sëñ Touba am na fu leen tegal fu gis ne sëriñ Touba yi jeexitam foofa dëgër na te moom nag am na wàll noonu loolu sa la yax nee na am na wàll ci dundalaat loolu ndax comme sorta seeni daara la fa la la jànge génne fa comme dañ fa génne day mel ne kon sëñ bi liggéeyaloo na ko ci liggéeyaloo na ko ci loolu kullu zalilin fawqahu kullu zalil ya man yara ghayra al ilahi rabba ku ne xam na wajuram wu góor ci xam-xam nangu gu mu ko nangul wérub njàngam firndeel na ni nonal xam-xami sëriñ Mouhamadou Bassirou Mbacké rogalaat na ci jëmmi sëriñ Mountakha sëñ Bassirou mi nga xam ne mooy wajuram nag te doonoon nitu diine doon nitu xam-xam moom Cheikh Mouhamadul Bachir bi sëñ Muntaxa sàkkoo xam-xam ba noppi bàyyiwu ko noonu da koo nattu ci xam-xam ba defe naa ne am nay jamono euh, sëriñ Moussa doomam nettali na ma ko nee na am na bis sëñ woolu ko cim néeg di di di gëstonteeg moom di ko nattu ci lim jàng ndax xam na ko dëgg dëgg xam wala déet ndax sëñ Basiru dafa doonoon borom xam-xam boo xam ne addina bepp xamoon nañu fi mu tollu woon ci xam-xam xam googu mu xamoon xam-xam nag bëgg xam-xam moo tax bi sëñ Muntaxa jàngee ba ñëw mu tëjoog moom ci néeg xam naa ñaar ñi kenn la ci euh, mu bu dul euh, ku ñuy wax Baye Assane Ndiaye Daaru Minam Saloum euh, ku ñuy wax Mam Amar Babu ci Kaolack kenn la ci kenn la ci ñaar ñi bi sëñ Basiru tëjoog sëñ Muntaxa ba génn da ko ah, sa waa da laa doon geustontel waye melna ne lim jàng xam nga xam ne kon mom dañuy wax ne kiko examiner ba xam ne am xam-xam moy Cheikh Mouhamadul bashir mi wajjo ci seigne bashir bokku na ci ñi raw ci rew mi ci ño xam ne mën nañ leena tek baram nangu seen xam-xam mu doon ko xam ne nag borom bi subhanahu wa taala dafa dogal muy borom xam-xam ku nek xam na ne xam-xam moy di ëpp solo ci ab jullit li ëpp solo ci jaam li ëpp solo ci jaamu yàlla moom nag yàlla defal ko ci ay tawféex mu doon koo xam ne daf ko bëgg bëgg gi dafa yàgg ci moom lool waaye loolu du kéemaan ndax ku xam fi mu soqi ko kon da xam ne kooku xam-xam ab cëram al ahad wa kawnu xayril xalqi laysa man jaat hadaani allahu hidaayata allati sàkku xam-xam ci ay coono la ko jaarale dem ba àgg ci boole mbooleem lees di xam ci diine ci àdduna ci sëriñ bi ci doomi aadama yi mu xam ko xamin bu wér gannaaw diine ji gannaaw diine diggante ak diine ji may gëstu nag sama diggante ak diine ji lépp itam bëgg diine ji wér lépp it gëstu gi ngir bëgg diine ji wér rek ba ca amee ab diir ba ma ca amee ab diir ma am ca tawféex ma ca tawféex la ma ci jëlee. la ma ca jëlee. mooy xam lay dëgg dëgg diine ju wér. xam lay dëgg dëgg diine ju wér a wér. ba ma ci agsee foofu. ma daal di sóobu nag. ma daal di sóobu nag. sóobu gi nag. ci biir sóobu gi nag. ma daal di jëmee ci bi. ci laa daal di ci sëriñ bi di jàng nag sëñ bi di ko jàng di ko jàng ba am ci taw ba am ko yàlla xamal nit la ci gën a xam dafa xam nit waaye dafa bari kersa ba boo toogeek moom te amook seetlu da ngay jàpp ne xam-xamam jëmul ci xam àddina wala xam nit fekk lépp lu ñuy xam ci nit xam na ko lépp lu ñuy xam ci àddina xam na ko koo xam ne ku am sago la amit kalite yu jafe moy nit mënu ko yakal ci nit mayut nit sax nga tok difa tuddi nit te bu lu rusone ba nga diko waxe dula ci tontu te du am jeexit ci mom mu ubbi ku yit ci jullit yëpp rawati rawatina mouride waye rawati rawatina ñu bokkal Seexul Xadim غنيت عن سيف وعن أرماه واجاني السميع بالتبصير sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke laataa muy doon xalifab sëriñ Touba rafetaloon na digganteem ak magam sëriñ Moustapha Basiru ci mbooleem lu mu daal liggéey ci yoonu murit laata yan bi agsi ci loxoom ak nos bi it ku nangoo woon a toppe la ku nangu woon a toppe la léeg-léeg sax toppe googee muy toppe am ñu ko ciy xool ay bët ci lii nu ko nit mën a nu ko mane waaye moom day woyof fi moom tooy ndax xam li ko war mu nekk ca bi mu demee ba gisatu Cheikh Mahamadul Bachir dafa topp Cheikh Mahamadul Moustapha mii magam yam ci loxoom di ko liggéeyal di dégluy ndigalam waaye lam koy yilif yilif ak ni kër sëñ mel teewut dafa jaxasoog doomi Sëriñ Tuubaa yëpp ku ne mu jox la doon ca moom ba fete fim fete mu ku ne am nga ci mom ab ciir ba def na seigne Muntaxa sam seigne Muntaxa la ba noppi nag mu nek fim ne di deglu ndigli seigne Moustapha te du ko gis ci lu muy tere am na itam lu ku ci seigne Muntaxa Mbàkke lu jitu muy don khalifa muy top gi mu top kep ku fi nekkon khalifa muy lu muy ci anam yépp nangu kilifteef moo ko teg fii mu nekk nii tey jii ndax ku nanguwul ñu yilif la doo yilife mukk ku nangu ñëpp yilif la di nga yilif ñëpp moom nag ba mu fi nekkee doon sëriñ Muntaxa di di di sëñ Muntaxa rek sëñ Moustapha Bassirou ne fi daan nangu woon kilifteef bi nga xamee ne sëñ mu sëñ Moustapha jóge na fi itam ku fi nekk mu doon sëriñ Bassirou ku fi noon ku fi nekk doon sëñ Touba doon kilifaam daan nangu kilifteef waaw bi fi sëñ Moustapha jógee nag kon mu war a dem jébbalu ji ci sëriñ Saliou bi muy ñëw ci sëñ Saliou keroog addiye yi mu indaale sëñ Moussa Nawel muy jëwriñam moo ko moo ko téye mu ne sëñ Saliou maa ngi lay sant bu baax ci may gi nga ma may ci sa bopp manoon laa jege ba di la jëfal maa ngi sant nag sëñ Moustapha bu baax ci doon gi mu doon sama kilifa ba noppi te xañuma la ba ma mën a egsi ci yow diggante bu doy waar. noppee gis doomi sëñ Tuubaa dafa fab sëñ Baara def ko doomi sëñ Tuubaa lam daa defal sëñ Saliou mu du ko def dox diggante sët yëpp ak sëñ Baara nga xam ne ku ne amoon nga yéene jàppale sëñ Baara waaye sëñ Muntaxa ab soññi la ci yow loo naroon da nga koo yokk loo narutoon nga def ko ngir fam teg sëñ Muntaxa sëñ Baara. te xamoo noo koy def ñëpp ànd ak moom ca jàpp ga ñëpp ànd ak ñoom ci liggéeyal sëñ baara bañ noppee gi sëñ baara bam taxaw sëñ baara ba jullee ko it fa saasa la jox boppam Cheikh Sidi Mokhtar ànd ak njabootu Cheikh Bassirou Diop sama Bassir Diop loolee itam jógu ca di jàppale Cheikh Sidi Mokhtar ci lépp doon jëwriñam Cheikh Sidi Mokhtar bëggal ko boppam doy lool ko boppam dénk ko yoon wi mu doon jëwriñam diggam ak taalibe yi doon jëwriñam digganteem ak mbokk yi juróom-ñaari at yi fi Cheikh Sidi Moukhtar nekk yépp lépp loo xam ne jëflante na ko moom mën nañoo wax ne ci suñu kanam ndax bari na lool lu ñu dem ci ab ëttam ni ko sëñ bi nee na nangam ba bokk na fi mujjug sëriñ bi ci yu baree bari yoo xam ne bu waxu rajo yu ñu jaar yoo nga xam ne ay wax la yu dox suñu diggante moom ak ak ak sëriñ bi ba ginnaaw sax bu sëriñ bi demee. bu fekkee mas na am lu ko naqari dëgg dëgg dëgg dëgg mooy keroog ba mu ko ñàkkee. ndax séentu wutoon lii bëgg ko woon waaye nag dafa toppe bañ xëy topp ko ñëpp yéene ko lim yor ndax da ko yéene woon ñu ko yor bi muxjilil ulumi wal amwali lii xaada yowma al arbaai al akramu maa doonu wal karamu wa takarrumu waajaani yéenay sëriñ ci liggéeyal sëriñ Tuubaa feeñal na ci bëgg lu baax bëgg xam-xam te mu jaral ko jël alalam def ko ci ay téere ci lim bu takku ñu fàggoo ko bitim réew sëriñ Muntaxa toog ci jataay bi moom it daal di tàmbali ay liggéey lu demee ni jumaay ji nga xam ni téere sëñ Basiir yooyu fi desoon fi leen ko defan wut benn màkkaan moo xam ni moom lañ ko jagleeloon féetale fa téere yooyu bi loolu amee mu songu ba liggéeyu jumaaji ji ba egg liggéeyu barabu sëñ Basiru bi ci la daldi nak sos li nga xam mom moy mooy liggéeyu liggéeyu bibliothèque bi bim mu ko defé mu liggéey ko ci anam gi ngeen gis mu liggéey bu am solo di espace bu yaatu bo xamni lo rek la ko jaglel mu dari jël téré yi nga xam mo moo téré ci cosaan bibliothèque bu sëñ Bachir di koy jaglel ak ak ak euh moy lu am solo euh, niki nonu it bibliothèque bi it mu daal di ci dugalaat beneen liggéey mooy def fi benn majlis mooy fu ñuy jànge foo xam ni it xale boo xam ne bëgg ngaa jàng sàkku xam-xam ci moo xam xam-xamu la wala xam-xamu làkku arab moom it indi na fi mbokk mu jox sëñ Moxtaar Fay muy taxawe loolu loolu lépp ngir yaatal xam-xam waaye ngir wane ni xam-xam moom moo moo ñuy dimbali ci àdduna moo ñuy dimbali dimbali fa nu jëm. tey maktaba bi la mu làmboo ci ay téere toll na ci juróomi junni téere. Eh, daanaka juróomi junni ak tuuti eh, làmboo na ko ci ay téere te nag néew na it nga fekk fi téere boo xam ne dafay dafay takraar dafay répété wu imma mu répété wu benn yoon waaye la fa ëpp ci ay téere tanawoo gi mooy façon yi téere yi bari moo gënoon ñor ñañu sant sant liggéey bi que eh, kammiya bi bari mooy quantité bi bari te fekk lu ci bari dafay répété wu mbooleem luy xam-xamul islaam boo demee ci fiq la fi nekk néew na téere ci madhabu Malik surtout téere yu ummahaat yi téere yi nga xam ne mooy téere yu cosaan yi néew na téere boo fi fekk néew na téere ci madhabu Malik boo xam ne doo ko fekk ci maktaba bi boo demee ci wàllu xadis ndax xam-xami lislaam euh, alquran la muy tafsir ak la ca aju xadis ak la ca aju euh, fiq ak la ca aju bu ci nekk ci fànn yii mënees na ko euh, tasaarewaat seddelé ko ba mu doon ay fan yu bare bare kon loolu yépp day wone yitte ji nga xam ne sëñ bi da koo jox xam-xam أنبت إلى الباقي الذي راض بالملا كمدح الذي مدحي له الكل جملا نبي نصيح لي سعابا يسهل وما رمت بالمختار ربي يسهل جيب دك ابني قلوان دك مين كان دف غرانا جيبو منك مبار والله يشام بي si Moussa Bissir ko mu def ko borom baax a baax a baax xam ne euh, mbaar la waaye du mbaarum ñax mi nga xam mbaa xeetu mbaar la mbaar bu rafet la moo xam ne mii dafa liggéey ci xeetu euh, jumtuwaay jamono yii moom rafet lool ti baax lool te yaatu lool wax dëgg yàlla ñu ko tuddee mbaar waaye du mbaar xeetu néeg la daal néeg néeg jamono lool daal loolu itam dem ba tubaarkala tey eh, mu mel tey nii mu mel ak xam ne liggéey ni mu mel nii mu mel nga xam ni ku ne ku ne gis na ko tey tabtoo gi ci am lépp ci taxawaayu sëriñ bi ak ndigalal waa ju baax day yokk rek amu fu mu yem moo tax tey xëy na ñu fekkoon démb bi ñu tàmbali fulk bi ak ñu ko fekk tey bu ñu ko waxee dina yéeme lool ndax tabarakalla waaye nag loolu mooy doxinu sëriñ bi loolu mooy liggéeyu sëriñ bi moom da ngay day yokk di dem amu fu mu yem boobaak léegi mi ngi dox dox bi sore sore sori rawatina bi nga xamee ne ci diggante bii Cheikh Mountakha nekk fii léegi nga xam ne bokk yëpp kooku beneen point la mooy point daje gi ma doon wax léegi ku nekk njaareem ci weeri koor bi nekk ak Cheikh Mountakha da nga gis ne mbooleem bokk yi tàmbali woon nañ ko waxtu jamono yi sëñ sëñ Moustapha Bachir waaye ñun ñëpp xam nañ ne yokku na daanaka amul genn kilifa ci yoon wi wax xam na ni koor gi ñëwee doo ko ko fekk ci weer wi benn bis wala bu mu doon. Euh, kon moom itam lañ naan mujjee pus bi mu réer moom du ko daal moom itam moo mën ci dundal dëkk bi ak ak ak yeesal dëkk ba ak wéttali waa dëkk ba ah, loolu euh, moom itam kem kàttanam amul amul fu mu ci yem moom itam ah, yàlla dogal na ren ji sax bi nga xamee ni ti koor gi euh, Tuubaa la woor yi am rek dara manqué wu ci lépp dafa yokk sax. ah bu ñu demee ba ci tabaxat mu jaar fukki fan ñëwaat njaareem ngir yeesal loola ak yeesal dëkk bi ak gën a saafanteeg waa dëkk bi ak xam ni fu mu ne itam xelam ngi njaareem loolu rek mooy moom noonu la si moom taxaa def noonu rek la loolu mooy wéy faaw insha allahu taala baraxaan ah, ba tey mooy loolu ndax baraxaan itam xam ngeen ne soxna Sadio Lalla soxna am jaara mi waajur sëriñ bi indi lépp moom moo fa nekk moom itam suñu Mouhamadou Bachir moo tàmbali woon di di fa di ko wooteel foofa ñu ko fay ziare xam ni ko fa nekk itam ah mooy lépp mooy eh, soxna jaar soxna soxna radiyallahu anha ah, suñu bis di ko dundal foofa di ko dundal ba yàlla dogal ba mu fi jógee itam Cheikh Moustapha eh, ibnu Cheikh Moustapha Bachir di xalifaam suñu Moustapha itam ci njàmbaaram ci pëstéefam ci ci ci ci ci ci ci ci bëgg ci amuk taalibeem ci fonk ndigal ndigal eh, ak ndigal gënal ko bakkanam gënal ko léppam moo tax bi nga xamee itam loolu naalu suñu Bichri la bëggu suñu Bichri la lam ci bëggati fa xëy na am na ci lu amagul moom itam moo taxaw tem ma nag ci dëkk ba lépp lu dëkk di am nu dëkk di mel luy taarub dëkk rek suñu soxla itam taxaw ba loolu lépp am Poroxaan eh, nañ ko bëggee woon si nañ ko bëggee woon ba tey mu def sax mbool yoon yi murit ku ku kilifa ku ne ci yoon yi rek am nga fa appartement boo xam ne boo ñëwee wala sa njaboot ñëw nekk fa loolu liggéey boo xam ne benn liggéey mënu ko gën a sell gën a gën a baax mooy daanaka taxawaayu si Moustapha ci Njaay mooy taxawaayu si Moustapha ci Porokhane abadan mukarrama diftul karima wa taaba lil xiraa wa bi manazil bi mu toogee ci xilaafa gi rek la joxoñ fa mu jëm ak li mu fas yéenee liggéeyal sëriñ bi ci yoonu murit liggéey bi mu njëkk njëkk a sumb te muy cër boo xam ne dafa mel ne sëñ Touba li mu soxla woon ci dëkk bi bu dee ñetti cëre cër bi ci des mooy daaray université jii nga xamante ne sëriñ bi ñaanal na ko boroomam kon mu mel ni yitte sëriñ Muntaxa mooy loolu sëriñ bi ñaanoon boroomam yàlla kàttanal ko ba mu jëfal ci sëriñ Touba jëf joo xamante ne dana ko wóor na ko ne dana ko wóor na lam ñaanoon boroomam boroomam nangul na ko ko may na ko mu wax ne moom yitteem ak naalam nag sas wi mu bëgg liggéey la sëriñ bi mooy loolu ndax ku toog toogaay bi rek am nga loo xam ne dañuy wax ne loola moom mooy doon sa sa sa sa sa sa liggéey boo xam ne moom ngay bëgg a defal sëriñ bi waaye moom nag mu wax ne nag fii la ko bëgg a tàmbalee mooy defal ko jànguwaay boo xam ne bu mag lay doon boo xam ne ni mu ko waxalee boppam dafay tàmbalee ci ki dal baasin ba ci njoboxtan njombaxtan la nag mooy fa gën a sori cim jàng mën nañu wax ni jàng amul fu mu yem waaye fa gën a sori moo waral yàlla defal ñu tawfiix it nag mu ko mu mu jox ñu ndigalul ñu féete ko ci wàllu waajtaay loolu nag ñu def ci liggéey boo xam ne positif lañ ko defee boo xam ne dañoo gëm ne rek Serigne Touba ñuy liggéeyloo moo nu tànnal lim ñuy liggéeyloo te loolu yombul Serigne bi wax ne nii laa bëgg defal ma ko nii loolu yombul. waqtu kulli lil karimi wal jamil walil wadudi rabbi anu la amil jikkoy sëriñ Muntaxa naam ñi ko jege seede nañu ko waaye ay mbokkam yi mu bokkal sëriñ Touba seede nañu ko itam mu am ñaari tànk yu muy doxe yoo xam ne ko amul xam-xam mënoo ko def mooy di doxe ci chariatul mutahara ak xaqiqatul munawara te benn du ci manqué bu ci ne lam ci wara def daf ci daf koy def ba mat sëkk lolou moy diine ji daf koy jox akam ba mat sëkk ba dara du ci dess man naa wax ne ba fi ni ni nii nii ñuy toll li muy xat xat xat li muy ñàkk jot day reey di ko xey di rang du tee bala xey li wara def lépp dana ko def ba jullu yor yor loolu gën dana def dogu alquranam def ay awratam awraat yi moom waxtu jël la fajar fa muy jullee du fa jóg te jant fenkul noonu muy sukkee boof mel na ku toog ci kanam sëñ Tuubaa di teewlu boroomam di teewlu sëriñ bi du fa jóg ba jant fenkul waaye bu fa jógee ba dugg ci biir li muy njëkk def mooy jàng dogub alxuraanam teg ca dogi xasida yu baree baree bëri dafiy lawraatam julli yoor yaram door a dem ci liggéeyal sëñ Tuubaa bi ci des ne loolu yi liggéeyal sëñ bi la ko jàppe waaye beneen bi ci des nag mooy nit ñi mu door caa dem ku ko dégg ñu wax la ci moom dana la neex dang ko bëgg gis waye boko gisé yit do bëgg dem ndax bu euh nit ku defar jëmmam ba ku ko xol bëgg ko yalla dimbalé nako ci waye yit xol gën koy xol mu di neex ba nga di ko bëgg bo jaxaso mom lay raw suma dégg ku ne sëriñ Muntaxa sama xarit la woon wala sama wëlëre la woon ñëm gën a yàggal ci ab jaxasoo ak ñi ñi ci diggante bi ak ñi mujj xam kenn ku ci nekk dangay defe ne li la sëriñ bi ëmbal ci ak cofeel ak nawloo akuk defoo dangay ngay foog ne yow dong la ko ëmbal te fekk moo keneen bu waxee da ngay moom rek la ko sëriñ bi ëmbal. nag bi ñu egsee li mu njëkk a def mooy bokk yëpp mu delloo leen li ñu moom li ñu am ci moom luñ fi indi luñ fi indi da koy fab séddaliwaat ko bokk yi xam ne moom ñoom ñoo ko bokk jëmmam itam mu bàyyee ko bokk yi dañoo waroon defab seen alal di ko yëpp. dañoo waroon di ñëw di ko siyaare moom moo wëlbatiku di fab lim am di leen ko séddale moo wëlbatiku moom ci moom di jóg di leen fekki kon loolu bokk yëg nañ ko xam nañ ko jàpp nañ ko kër sëñ dem na fa saafonte ka fa nekkal kër googa jokk bokk ga te bu toogoo nit ñëpp di ko fekki bokk na ci itam dimbali yi nga xam ne sax daf koy dimbale ñiy jàng ak jàngale defe naa ne bu mu toogee rek ci jotaayu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bii nga xam ne yàggagul ñu ñaan mu yàgg lool nag te ànd ak jàmm gis nañ ne bokk na ci jëf yi mu jëf mooy yëkkati lim bu am solo jox ko ñi nga xam ne ñooy tuut tànk yi wax ne nañ leen ci jàppale di ci saytu seen wér-gu-yaram gis nañ itam mboolem jàngukaay yi fenn fu ci ne loxo ma nga fay dem di jàppale ki nga xam ne mooy sëñ daara ba ngir mu mën a toog ca daara ja ba saytu ko na xam ne noonu la noonu la noonu nit ku baax la nag nit ko xasee ba wax leneen loo tudd ci ay melokaan ak i jikko day dugg ci biir ku baax la rek waaye mënees na see jàpp daal ne ku social la social nag la ci jiitu mooy ku ñëw mooy ku jaaxle am xelam daj la te bu ñëwee ci yow yaakaaram du tas ndax ku la ku xelam daj ba mu yaakaar la bu ñëwee dana la gis te bu la gisee dana waxtaan dana wax li mu bëgg a wax te bu waxee nga tontu ko loolu yàlla dimbale na ko ci jëmm la joojit ku mën a dimbale la loolu tam day dugg social rafetal ndoonal Serigne Bassirou ci gannaaw magam di Serigne Moustapha Bassirou ba ni mu ko wuutoo rafetal digganteem ak mbooleem xalifay sëriñ Touba yi bëgg taalibe yépp jariñ ci liggéeyal Serigne Touba fa yéene ànd ak ñoom ci liggéey bi ba ca kaw loolu bokk na ci dogu ak yéene kii fi toogal Cheikhul Khadim di juróom ñetteelu xalifaam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér te ay naalam fës lool ba mu làq yeneen i ngërëm ci sëriñ Touba ci toolub Seydina Muhammad bii nga xam ne moom dong moo ko ñor ndax xam gu mu xam ne bay ci toolub yàlla bii dong moo tax ñu wàcc ko ci kaw suuf